Alioune euh, Gérard Koita maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay euh, euh, Ndeye di kontaan également ci invitation bi. voilà Gérard Koita FRAPP France dégage daal di lancer benn mouvement wala slogan en tout cas tuddee ko Macky dégage góor ca wax ja lu ni mel lan moo ko waral. li ko waral effectivement FRAPP démb la organiser benn jano ak taskatu xibaar yi. ngir relancer. ngir benn campagne. Euh, bi ñuy daal di woowee Macky dégage maanaam Macky euh, jóge fi gor ca wax ja mooy su jeexee jeex na deux mille vingt quatre maanaam bokkoo ci ndaxte tey jii nii euh, dañoo daal di gis ci ay mbir ñi nga xamante ne suñu njiitu réew mi dafa nekk di teg ay mbir yi nga xamante ne ñun waa FRAPP du ñu daal di toog seetaan ba activité yooyu noonu jot pour ñu àddu ci ndax tey bu ñu gisee constitution bi dafa leer nañ ci lu mu wax ci par rapport ak ñetteelu mandat bi nga xamante ne njiitu réew mi moom la bëgg a def et constitution bi sax moom takkal na ko nee na loolu amul ñu ñu ñu kiy gis ni que président Macky Sall chaque jour que jotee dafay daal di teg ay actes yi nga xamante ne dafa bëgg maanaam imposer kanu Sénégal maanaam troisième mandat wam boobu nga xamante ne kenn d'accordu ci mais encore bi ñu gisee nomination bi passé rek euh, ministre bi Amadou Ba ministre boobu nga xamante ne moom moo doon def li nga xamante ne promotion que maanaam njiitu réew mi dafa war a am euh, continuer di am mandat mais aussi bi ñu gisee euh, préfet bu Dakar Mor Talla Tine interdire barki Dembo Ndiaye benn euh, concert bi nga xamante ne ci mbirum addu maanaam ci limitation mandat bi ñu interdire ko donc mbiri cas yooyu yëpp ñu jàpp aussi ci problématique boobu nga xam ne troisième mandat en deux mille onze amoon na fi ba mu am ay citoyens yu bëri ñàkkoon fi seen bakkan ci Sénégal ñu nag FRAPP nag ñu ne ah en tout responsabilité jot na ñu ñu taxaw maanaam lancer campagne bi bu ñu maanaam contre ñetteelu mandat bi président Macky Sall bëgg te ñemewu ko wax moo tey démb ci la lance lancer suñu campagne le mooy Macky dégage gor ca wax ja su jeexee jeex na. mais mais Alioune Gérard yéen tamit fan ngeen teg ni Macky amul droit troisième mandat te du ngeen ay constitutionnaliste en fait fan ngeen ko teg. Euh, fi ñu ko teg dafa leer nañ. Mhm. ndax euh, tey soxlawuñu nga nekk constitutionnaliste wala nga nekk juris pour wàcc mbir mi ndax ñun ñëpp askanu Sénégal ñoo ngi fàttaliku bu baax a baax en deux mille onze deux douze bi président Abdoulaye Wade bi mu bëggoon teg jéego boobu noonu moom président Macky Sall boobule bokkoon na ci ñi nga xamante ne dañ doon ñëw ci place de l'Obélisque euh, kii nii kii ngir ñaxtu par rapport ak candidature président Abdoulaye Wade boobu noonu et que ñun tey ñu jàpp ni que toon ñun njortoon nañ ni que question boobu noonu ñëpp waroon nañ ci addu sauf moom président Macky Sall ndax tey moom président Macky Sall bu ko defee maanaam dafay daal di war maanaam yi nga xamante ne M23 boobu loolu lay xeex donc moom président Macky Sall moo tax ñu ne ko gor ca wax ja ndax moom ak jabaram cii di soxna Marème fay Sall bokk na ci ñooñu ñu doon xeex donc keneen moo ko waroon def pas ñun ñun ñu jàppoon ñu ko tey vingt et unième siècle débat bi waruñu ko woon posé ndax constitution bi atte na wax na ko déjà ci français nee na nul ne peut exercer plus de deux mandats constitutionnels maanaam fii kenn amul droit tegle ñaari mandat moo jiw tegloo donc loolu soxlawul sax nga jàng école walla nga nekk droit wala nga def leneen leneen loolu dafa leeral nañ moo tey nit ñu gis ni nag président Macky Sall dafa bëgg mbir mi dafa bëgg wax mais xamul. pourtant waxu ko de pourtant waxagul ni day def. troisième candidature te yéen Alioune Gérard yéen a ngi tëb di dal voilà. non tëbuñu daluñu. ndax Macky Sall dafa teg ay ay jéego. jéego yi mooy lan Amadou Ba bi ñu nommé premier ministre Amadou Ba boobu moo ngi def promotion boobule muy benn ñaareel bi porte parole boobule maanaam ñi doon weddi maanaam ñi doon xeex démb ak barki démb ñi doon wax ni que troisième mandat bi kenn du ko bi sax maanaam ñooñu nekk di naan. njiitu réew mi dafa am droit teg ko et nag nag président bi même duñ ko posé question boobu nag ba léegi amul santan amul ngor maanaam courage wax askanu Sénégal que man bokk ma ndax même buñ ko posé dafa ne nii wuy nii non mais loolu lan la tekki te ñu ñëpp xam nañu maanaam mandat dafa bokk ci bilan immatériel et donc ñun tey ñu daal di xaar ba njiitu réew mi en deux mille vingt mu leeral ñu ko ñun déedéet dañuy daal di jël les devants moo tay nag ñu jàpp ni que nag il est temps que peuple sénégalais yi ñu def maanaam benn say moo tax ci biir campagne boobule ñun FRAPP en tout cas prévoir nañu rencontrer mbooleemu euh, organisation mbooleemu personnalité bi nga xamante ne yow da nga doon xeex démb ak barki démb ci ñetteelu mandat bii bi nga xamante ne ñun njortoon na ni ko euh, Sénégal waroon na dépasser lii ndax Sénégal vitrine la ci wàllu démocratie et que président Macky Sall dafa waroon jël courage am en deux mai leeral mbir mi une bonne fois pour toutes mais acte yi muy posé moo ñu poussé ba ñun waruñu xaar ba deux mille vingt quatre ngir wax ne moo tey nag ñu ne ko Macky Sall hee gor ca wax ca ndax bu jeexee rek jeex na. léegi Alioune Gérard naka ngeen fas yéene wax def euh, maanaam lan mooy seen plan d'action pour contrecarrer euh, une troisième candidature du président Macky Sall. Euh, en tout cas de li ñu wax rek mooy ko campagne bi daal am na contenu et que ci biir contenu boobu la pare nañu en tout cas ngir rencontrer organisation yëpp dañuy daal di pare lépp et que fan yii di ñëw incha allah dinañ daal di def également ay activités ci activité maanaam. toujours dem ci wàllu boobu la bu ñu jógee ci activité yooyu nag ah dañuy taxaw na xaar président Macky Sall bés bu amee fit wax trois ndax trois moom dañ koy tere bés bu waxee ni que moom di dina bokk boobaa euh, dina jàmbarloo ak ñun loolu moom mun naa la ko wax mu leer nañ ci boppam moom président Macky mais naka lay demee ay marche lay doon ay sitting dangeen di dem bunt palais lan lan la frappe dara ah, en fait déjà avant mu koy wax déjà campagne bi naka lay demee te bis bu ko waxee naka ngeen di def bu ne damay defaat troisième euh, candidature je la ci biir campagne bi euh, dañuy commencer rencontrer ñëpp mm-hmm. ñi nga xamante ne euh, dañoo bokk ci société civile la yi ñëpp dañ leen di daal di rencontrer bu ñu jugee ci loolu itamit euh, dañuy def tamit yeneen activité toujours allant ci sens boobu nag ñu taxaw temb moom président Macky e et que yaakaar naa ne askanu Sénégal xam na ni farab lépp lu mu munti wax su bëgg ngoon euh, yaakaar naa ni dañ koy def ndax bu dee marché kese ah dañ koy def ndax mun naa la ko wax ñun FRAPP bokk nañ ci seen organisation bi nga xamante ne ñoo ëpp ay mandat de dépôt ci régime président Macky bi moo tey nag euh, lu ko jar rek moom moom par exemple Macky Sall ko jaral moom na jàpp ni ko ñun waa FRAPP dina ñu jaral en tout cas mooy lu ko ëpp donc luñ ci mën a wax rek mooy ko trois moom dañ ko fii tere et que bañuñu ci dara ak moom te duñu daw jotaa aussi. voilà Alioune Gérard Koita ñu gis ni nag euh, kon euh, fi ñu toll nii dund gi cher na cher gu doy waar maanaam njëg yëpp dafa daal di yokk frapp yéen naka ngeen fas yéene euh, def pour dénoncer cherté de la vie nga xam euh, cherté de la vie bii nga xam ne euh, sénégalais pratiquement mënatuñ ko sax dékku. waaw euh, di masawu bu baax a askanu Sénégal ci jafe-jafe yi nga koy dund. et que jafe-jafe yi kenn kenn tegu ko askanu Sénégal lu dul euh, moom président Macky Sall pour ñun nag FRAPP je pense que askanu Sénégal aussi gisoon nañ fi daaw depuis daaw le douze septembre daaw demoon nañu fële ca Guédiawaye euh, pour organiser fa benn manifestation mu amoon ci suñu maam yi nga xamante ne tegoon nañ ne fa loxo problème bii la woon en deux mille vingt et un deux mille vingt aussi le vingt trois aussi jàppoon nañu ci problème bii donc pour wane ñun waa dañuy alerter dañuy jëf maanaam euh, dañuy wàcc également sur le terrain donc ñun du tey jii nii nañu commencé wax ci par rapport ak cherté de la vie boobu noonu. léegi nag mbir mi dafa gën a continuer di persister moo tey fan yéenee passé rek defoon nañ fi benn conférence de presse ak waa CSA ak yeneen collectif ak syndicaliste liggéeykat ci euh, après conférence de presse bi ñoo ngi continuer waxtaan yi et que fan yii di ñëw incha allah euh, dina am ay yeneen activités yi nga xamante ne aussi dinañ ko daal di def. Mhm. par rapport ak charité bii ne ndax tey du dëgg du yoon président Macky Sall yéen a ngi gis même ci nomination bii ni amul benn senegale bi la mun wax lan moo signifié par exemple ministre auprès du ministre. lenn wutuwul ko lu dul maanaam lekku ak sàccu alalu askan bi noonu kese. léegi fi ñu toll nii Alioune Gérard ñu am gouvernement bu bees tàq Amadou Ba nekk premier ministre est-ce que yéen FRAPP euh, am ngeen lu ngeen di xaar ci gouvernement bi euh, pratiquement trente-huit ministres. Amadou Ba de ci moom de euh, ñun de xaaruñ ci moom dara ndax Amadou Ba boobu noonu de. moom moo doon def li nga xamante ne apologie ngir njiitu réew mi dafa am droit maanaam sañ-sañ ñu am man mandat donc tey Amadou Ba boobu noonu euh, ñun amuñ ci moom en tout cas yaakaar loolu mooy benn ñaareel bi Amadou Ba nekkoon na fi ministre finance en tout cas nag moom bi mu nekkee ministre finance de ah suñu petite et moyenne entreprise yëg ci suñu mooy ci mooy seen bopp au contraire Amadou Ba euh, promotion maanaam finance su toxandeem loolu la doon def donc tey. Amadou Ba ak diir bu yàgg ba mu nekk ministre yëpp changement amul donc du quinze mois yii nii la ñu mën a xaar ci moom changement. moo tey nag euh, FRAPP dina daal di continuer alerter dina daal di continuer xeex mais ñun njortu nañ ni que gëm nañu aussi que du Ba bii nii ndax ki nga xamante ne moom mooy def euh, promotion ko njiitu réew mi dafa war a am limitation euh, mandat donc kooku maanaam ñu xaar ci kooku ëllëg pour mu saafara maanaam jafe-jafe. askan bi. au contraire kooku. waaw au contraire kooku noonu intérêt wu dynastie Faye Sall maanaam séddale bukki xam nga ñu ne séddale bukki am na te maanaam kooku intérêt wu séddale Macky Sall maanaam bii Macky bii Timbo bii Marème bii et cetera bii et cetera kooku de loolu moom moo ko tax a jóg mais par atténuer jafe-jafe yi nga xamante ne askanu Sénégal loolu noonu la daal di dund. ñu gis ne 38 ministres la lim bi euh, FRAPP d'accord na si waaw wala déet. même gis ngeen ñun bokk nañ ci organisation yi nga xamante ne ñun euh, même euh, président Macky Sall bi mu waxoon ni que dafay daal di yokk li mu député yi jamono boobu noonu FRAPP génnoon na communiqué ngir wax ni que président Macky Sall dafa waral maanaam wàññi maanaam train de vie état bi au moment où bëgg bisaab maanaam bëgg bi takk bi moo ngi jar cinq cent francs yéen a ngi gis euh, suñuy ñoo ngi nommé ay ministre auprès du ministre maanaam loolu sàcc xaalis kese ak case clientélisme politique jamono bi nga xamante ne askanu Sénégal mbënd bi moo ngi koy sondal ñoo ngi créer ay institutions inutiles et budgétivores comme ñu mel ni ay ASTC ak ñoom seen ñun jamono boobu ñu jàppoon ni que moom présent Macky Sall bi mu jëlee woon acte fort boobu bi mu posé woon supprimer Sénat ngir xeex mbënd mi donc moom du moom président Macky Sall moom moo waroon créer institution inutile et budgétivore boobu noonu donc ñun luñ ci jàpp rek mooy que président Macky Sall en réalité ci promotion ci Faye Sall ci la wéy maanaam sac ci alalu askan bi def seddale bii màcc bii timbo bii et cetera et cetera donc moo tey nag jafe-jafe askanu Sénégal bi dafa daal di continuer donc lii yëpp li ko mandargaal maanaam mauvaise politique bi nga xamante ne président Macky Sall suba ba maanaam chaque jour ci loolu kese ci lay dox. moo tey jafe-jafe yooyu noonu moom mooy daal di retombé ci askanu Sénégal. dernière question Alioune euh, Gérard peut-être euh, question anodine comme ni ko tubaab di waxee naka la Guy Marius Sagna euh, di dundee kasketu député en même temps mu bokk ci révolutionnaire yi nekk ci mouvement FRAPP France dégage naka la koy dundee ñaari kasket yi est-ce que ànd na wala àndul. jii en tout cas nu mu koy dundee moo ngi koy dundee nii ni mu ko waxee rek yaakaar naa même moom wax na ci moom tey lu mu doon xeex ci biti maanaam loolu kese lay continuer xeex fale ci assemblée bu génnee ci biti da koy continuer li koy firndeel rek même démb rek ci conférence de presse frappe bi moo ngi nekkoon foofu te yemul ci conférence de presse bi rek bépp askanu Sénégal bi nga xamante ne chaque fois dañuy faral di demander ay rendez maanaam ak France maanaam ak ak ñun waa frappe euh, Guy Marius Sagna dina fa teew donc po rek wane ni que maanaam ñaari casquette yi moo ngi koy gérer. maanaam il est membre du FRAPP moo ngi continuer également nekk ci tamit maanaam nu mu doon xeexee ci biir FRAPP xeexee euh, ci li nga xamante ne euh, biir assemblée bi yaakaar naa ne askanu Sénégal yëpp gis nañu loolu noonu donc moo ngi koy gérer comme euh, nu mu yàggee gérer comme nu mu nekkee woon kii rek en tout cas député parce que askanu Sénégal nit ci gën a bëri. Mm-hmm. ñoo doon wax ni Euh, Guy Marius Sagna nekkoon na député bien avant ñu jox ndombu tànk bii nii. donc moo koy gérer mm-hmm. waaw. la Alioune Gérard Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. Alioune Gérard Koita fàttali membre nga euh, ci secrétariat exécutif bu FRAPP France Dégage ñu koy remercier bu baax a baax.